The lumpy top. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen jaajëfal bu baax a baax di leen ne saa yu jàkkaarloowee VIP people mbégte ak kontaan moo la ñu ànd yéen chaque seen émission Fassaaria doolati na waaye tey dañoo génn si beneen facette ñu seet si tey benn sëriñ boo xam ne kenn dootu ko présenté ci lu muy yëngu mu ngi ciy def lu am solo am solo solo solo bu baax a baax muy sëriñ Bassirou Touré alxuraan tey moom lañ seet si si Kër Massa ñuy ñaan yàlla rek lépp luñ fi waxtaanee mu nekk lu am njëriñ waaye nag tey dinañ ko laaj ci yu bari dinañ ko laaj si dëkk bi nu mu mel jamono ji waaye nag dinañ ko laaj si affaire yu ñaan affaire ubbeeku affaire yu bayre balaa lool rek dañ koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal si recevoir bu ñu refa recevoir VIP people sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jaajëfal. alhamdulilahi rabbil alamin barke borom Touba wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad bismil ilaahi yan mawlaha yi bila manaahi wala intihaayi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginaaw bi sante sunu borom subhaanahu wa taala di julli suñu sang seydina muhammad salallahu alayhi wa waaye di yees suñu njëbal xaarimu rasulillahi mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp nag mbooleem ku ñuy seetaan mbooleem diaspora bi Europe Amérique Angleterre fu waay nekk rek ñu ngi lay fekk fa nga toog di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna si waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tey ñu seet si la pour ñu pour nga leeral ñu ci yu bari ñu xam ne yow yaa ngi def ay affaire ñaan ubbeeku bayre ak koo xam ne dafa am ay rab mais balaa ñuy xuus lépp dama bëgg a xam nit bu ñëwee ci yow da nga koy seetal xam lu nekk si boppam ba pare balaa nga koy jox ñaan. waaw soxna si alhamdulillah nit bu ñëwee si ñun diis ñu yitteem. wala mu woo ñu téléphone diis ñu soxlaam mm-hmm. bala ñu ko wax lenn si soxlaam des koy xoolal ba noppi mm-hmm. listaxaaral ko baa ñu seetal ko la ca mën la ca am lépp ñu wax ko àggee ko mm-hmm. bu dee lu ñu mën a saafara ñu saafara ko bu dee sarax yu ñu mën a génnee ñu génnee ko waaye duñ tëb tëb defal nit dara te xool luñ ko ko faaw ñu jaar ci yoon bi ndax lépp loo gis rek am na bunt kon seet mooy bunti ñaan ndax moo lay génnee la nga war a saraxe moo lay génneel ñaan yi nga war a def ba mën a jëfandikoo mbir mi kon kuy ñëw si ñun duñu ji soxla rek sarax seet lañ la njëkk a def seet lañu njëkk a jëflanteeg yow ba noppi doo ko jëflanteeg yow si mbirum ñaan gi seet nag dafa bëri façon am na ñoo xam ne dañ koy fanaanal am na ñoo xam ne dañ la koy defal jooni jooni yow ban nga ci gën a gën a favoriser yow ñun moom soxna si liñ yàgg di seetee listixaar moom dañ koy seete mooy fanaanoo bi mm. lu ci ëpp sax moom lañuy def fanaanoo bi waaye nit danañu woo léegi jox ñu turam ak turu waajuram ak at yi am ñu ne ko kuppeel daal trente minutes nga woowaat ñu ñu wax la ci tëji waaye listixaar dañu ëpp waaye dañuy seet léegi dañuy seet léegi waaw dañuy seet léegi wax la ko léegi loolu dañ koy def si doomu aadama di ngi ñu woowee téléphone bala ngaa coupé ñu xoolal la ko àggee la yitte ji Mm. loolu moom dañ koy def si doomu aadama yëpp incha allah mm. waaye listixaar lu ëpp lu ñu def listixaar mooy fanaanoo bi nag te listixaar bi nag dañ ko sàkku di ko def mooy ba yonent bi mm. boobu la def te bu ñu ko defee si kat nu borom bi lépp loo xam ne mi ngi ci yow si lu nëbbu dañ la ko génneel incha allah loolu dañ ëpp lu ñuy def incha allah ñu gis ni boo ko seet seetlee ba pare nga wax ko lu nekk ci moom tey gis nañ ñu bëri tey ay faru rab da leen di dab faru rab gi day indi tey dox yenn heure yi ñu bari dañuy am faru rab walla am du dugg si seen yaram bi tey loolu di nga ko mën a faj wala. xam nga soxna nga doomu aadama. dafa nekk loo xamante ne yaramu doomu adama la ci dajaloo daa bëri. Mm-hmm. si yëpp nag mboolem yëpp. doomu aadama day doxaale cat day doxaale rab day doxaale liggéey day doxaale àndandoo mooy far rab boobu nga wax. Mm-hmm. moo xam faru rab la moo xam caru rab la lenn lu ci nekk boo ko listixaar da nga xam moom la ko dal bu dee cat la da ko mën a dindi cat nag moo si ëpp waaye bu dee faru rab comme faru rab bi nga laaj moom dañ koy dindi ba mu set ba mu dañ si yow ndax faru rab bu dee jigéen la daan la tere am boroom kër bu dee góor la daan daan la tere am soxna yooyu da koy gént di ko gis mu lay yàqal mu lay indi ay gàllankoor yooyu dañ koy diin ba mu set si doomu aadama traitement dañ koy def te dañ des na génn sarax sarax yoo xam ne moom suñu yitte dëgg dëgg dëgg dëgg sarax la moom sarax la lii génneel nga génne ko defal traitement bu boo ko defee boo ko defee si kàttanu borom bi mboolem loo xam nekkoon na si yow lu wàllu xeetu rab day dañ ba seet wi ci yow. parce que des da ngay gis koo xam ne tey toll na si buntu am du am wala lu mu jot lu mu war am du ko am du egg ci moom. am nga doomu aadama day am ñaar muy cat ak àndandoo boobu lu bari bi day am day toll si buntu am am day toll si buntu am am war am àddina ak li ci biiram waaye lenn moo koy moo koy gàllankoor muy àndandoo ak cat nañ mooy tundu ko tamit taqal naan dañ maa liggéey wala dañ maa nangam si ëpp si nit cat ko sonal wala àndandoo boo xam ne ànd ak moom di dëkkaale moom moo ko yàqal ba munu téyee dara lu dikk day dem wala munul am dara am amam day jafe du mën a am dara lu bunt bu mu fëgg day tëju loolu àndandoo noo koy def si moom cat da koy def ci moom. mais léegi yow ku ñëw ci yow di nga ko dindil ba mu set. si kàttanu borom incha allahu rabbi ku ñëw ci ñun bañ xool la ba xam lu nekk ci yow sarax yi bu ñu ko génnee ba nga defee ko na mu waree incha allahu rabbi liggéey bi balaa mot 14 jours dana dem ba setu si yow. mais am na ñoo xam ne tamit du ñu rey yow da ngay rey walla dafa am li ngay ñaan rek. xam nga rey moom. dafa am ñoo xam ne faaw ñu tuuru leen dara rayal leen xar baa béy baa nag baa gileem baa lu mënti doon am ñoo faaw dañu leen mën a tuuru deret waa am xam kenn wuru leen tuural deret léegi kooku noonu am na sëriñ yoo xam ne ku ñu waru tuural deret ñu tuural la deret léegi kooku noonu est-ce que doo ko sànq xam nga sëriñ ji nga xam ne waru ñu leen tuur ñu tuural leen deret xam nga sarax dama def xam ne sarax hmm. am na sarax boo ko defee sëñ biir mën na faa jaaree tëju du ubbeeku mukk ngay saraxe rek te xamoo sa sarax wuroo rey nga rey mën na laa tëj tëj goo xam ne doo ubbeeku war ngaa rey reyoo mën na laa tëj nga sarax leen loo xam ne du sa sarax mën na laa tëj kon leen su nekk la cee baax dangay ngay xam sa sarax képp ku la diggal rey te wuroo koo rey wuroo saraxe rey boo ko reyee mën na laa indil gàllankoor boo xam ne toppaat si ginnaaw après moo tax lépp lu si am rek résultat ci am mooy lu leer nañ ñi nga xam fa nga dayoo ga dayoo ga mooy seet ko xam ne da war a rey wala déet wuroo rey wala déet ndax sarax dafa am solo si doomu aadama doomu ko war a fonk bu fekkee da ngaa a rey ñu ne nangam nga war a rey rey ko boo ko génnee saam nga nangam nga boo ko defee ala kulli alin loolu balaa jant bi soo nga gis sarax soosu bu rey ñu la wuroo rey génne nangam nangam boo ko defee balaa jant bi soo da gis waaye boo ko defee te wurut da gis da nga ko yëgaat da nga naan fu ne dem naa fa te bëri na si bëri na ñoo xam ne fu ne dem nañ fa saraxe nu ñu ne weexal nu ñu ne waaye dafa fekk na fañ war a jaar lañ jaarut moo tax mbir ya am nu mu def si ñoom des nga gis ku sëy ay ati at mënul fexe ba am doom bu ñëwee ci yow jëflante ak yow aajam dina faju incha allahu rabbi nit bu fajee nit bu sëyee nit bu sëyee ay ati at wala ay weer weer mënut am tout tànk mu ñuy suñu bu ñu ko xoolee ba xam la ca nekk des na ko saafara xam nga sëy yu bari loolu da ciy am mooy mbir rab boobu ma waxoon hmm. damay indi benn indi rab muy àndandoo bi hmm. dana tee nit am doom dina boo xamee feebar boo ko dal da nga ko mën a liggéeyal boo wax liggéeyal téere boo xam ne balaa yàgg dana am tout tànk dana wan lor insha allah rabbi ñu gis ni que instant yi xale jigéen yi ba ñu bëri bëgg nañ am jëkkër waaye jëkkër moo ñëwul lan mooy saafara. man loolu yàgg naa koo wax yàgg naa wax mbirum borom kër ku am ku bëgg borom kër yàgg naa koo wax yàgg naa wax ne am na téere boo xam ne bu ñu la ko takkalee balaa tilim ci yow nga am borom kër. balaa tilim. balaa muy nga am borom kër. ma yàgg yàgg naa ko wax. te jubal léegi noo koy weccee ko wala foo mu ñëw ba ci yow. ñu déggante wala nga ñëw sama am yitte yitte rek man yitte ci laay fajee doomu aadama soxlaam ndax ñun lenn ñoruñu du fajal doomu aadama yi seen soxla seen soxla hmm. ndax yooyu yàgg nañ cee jëflanteel doomu aadama si mbirum sëy wala si mbirum tuutànk waaye yitte jë moo koy laaj ba suñu borom jàppandal lépp incha allahu rabbi ñun loolu képp lañ fi suñ borom tege mooy dimbali gi ñu dimbale. doomu aadama yi képp lañ fi taxawee incha allah bi ku am yitte wax ñu ko wala nga woñu téléphone wala nga ñëw si ñun ak yitte dana la ko saafaraal ba mu saafara du am benn problème incha allah gis nañ que kuy problème yi dañuy bëri am na ñoo xam ne dañuy xëccoo place est-ce que tey nit bu doon xëccoo place ak kenn bu ñëwee fii di nga ko mën a jàppale ba mu jot place am. mbirum xëccoo moom xëccoo moom wax naa ne man moom man man sama jëm bopp ni dàqu ko yombut gisuma ko bokk boo doon wër fii laax di ko dox gisuma ko ñu dàq mbirum xëccoo ndax dañ ko gëstu ba mu leer na ñu wëlbatu jàng ko ba xam ko baax a baax képp koo xam ne ñu ngi lay xëccool moo xam da ngay nekk ci football di xëccoo équipe coupe ndax loolu tamit naa si profité mooy suñu équipe bi nga xam ne mooy équipe Sénégal di wàcc coupe d'Afrique di xëccoo ji coupe loolu si laa si message ñëpp sakku ma ci lenn nag tamit dama see taxaw ngir. kon loolu yow mën dama si dox ngir fi ñu fi ma bokk ki ma fi bokk mm. du ab sénégalais mm. yàgg xeex di xeexante mm. indi si seen biir di xeexante ba bu ñu demee gàllankoor day am pour ñu man jël ko bi loolu insha allahu rabbi dañ koy saafara ba saafaraw mooy dem jëli coupe indi ko amul leen lu ñu sàkku nag waaye am nañ duraane sañ nañoo togg doomu aadama ku bokk si ñoom ku bokk si fédération wala ku bokk si équipe bi ñu diggante yow na la nangam ak nangam de bu ñu ko jëfee ala kulli alin incha allahu rabbi ku bi ñu ngi waajal. waaye nangam bu ñëwee nangam naam nga may jox sarax yi li ñuy génne man soxla ma ci dara nañ ko génne def ko hmm. waaye li ngeen moo war a jox ci weexal sañ naa ne buñ demee man la nangam nga may jox bu jëlee coupe bi waaye amul leen luñ ci laaj waaye si kattanu borom bu ñu ko defee. incha allahu rabi day dem moo tax man la mbirum xëccoo si xati côté bu nekk nag wàllu place wàllu at wàllu mënti doon wàllu làmb wàllu mënti doon dañ siy dox ba mu sëkk incha allah. xëccoo. des fois nga ngay sëy si famille euh, sa goro sonal la wala say njëkkee wala ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci kër gi di la sonal est-ce que tey nit bu ñëwee ci yow di di nga ko mën a saafaraal mettit boobu. xam nga mbirum sëy sax maa ngi si lancé mbirum sëy nga sëy si famille boo xam ni maanaam. say goro dañ laa bañ wala famille ba juba woocoo kenn juba woocoo kenn mm-hmm. mas na laa defal loo xam ne ñëpp da nga jub ñoom danga nekk ñu benn mm-hmm. bu dee sa wàllu borom kër la jubóowoo ak moom yaa ngi dégg mm-hmm. bëgg nga loo ko wax ngeen ànd loo leen wax ngeen ànd nekk benn mënees na laa defal loo xam ne lem nga koy boole lem lem lem nga koy booleel boo ko defee sa kanam nga ànd ak sa borom kër loo leen waxtaanee dana ko nangu yow soxna si loo ko sàkk dana ko nangu bu dee si góor gi la bu ko defee ba ànd soxna si lu mu ko wax da koy nangu benn ngeen di doon kenn dootul mën féewale loolu mu des koy liggéeyam des fois nit di génn ak nit pour mu takk ko te fekk kooku pareegul pour takk ko des na sa ñaan ba suñ borom yéewandal mbir yi ba xol ba jubbu ko ba mu takk ko ndax loolu leen saa da si am ndax nit dana génn ak nit ba war koo takk war ko dem takk keneen léegi nag yow soxna si nga xam ne bëgg nga waaj takk la wala góor gi bëgg na takk soxna si si farata laax de mënees na koo defal mu takk ko incha allah. da nga ay jour wala ay fan wala bu ko jaree da ko dana ko am bu jaree ay suur dañ la nangami suur lay àpp bu ko jëru dañ naan la toogal digg diw lépp dana jàppandal. Mm-hmm. waaye lépp nag dafa am yoon wu muy jaar. Mm-hmm. yaa ngi dégg day am yoon wu muy jaar dana xam yoon wa lu ko ci jar rek dañ la ko nag jar na ko nii la. nangami suur 14 suur wala 7 suur wala wala weer wala nangam waaye da koy laaj liggéey bi moo koy laaj bu ko liggéey bi laaj danaa nangami suur la du ko du ko romb te àndoo leen. nga nekk koo xam ne tey ñëpp dañuy ñëw ci yaw waaye tey gis nañ benn combat bu ñu bu ñu war a jëm muy diggante Ama Baldé mu bëri coow torop torop torop yow ban lan nga si jot a man moom soxna si yàlla dogal na moom combat moom du sama doxin. Hmm. doxuma ci te duma ci wax. maa ngi ñaan daal ku yàlla may ndam yàlla na ko saa borom may ndam ñun ñëpp rek suñu borom tànn ba may ko ndam rek yàlla na ko jik waaye combat moom làmb moom nekkul suñu jëmukaay. nan nga gisee diggante woykat yi tey Waly Sidi Diop ak Pape Diouf coow li bëri torop yéen ngeen nekk ñoo xam ne tey ku jaaxle ba jaaxle il faut mu daw ba ci yéen. man ñooñu moom daanaka euh, ñaar ya li ma leen a siifut bëriwut waaye nag damay toog ay nit ñuy waxtaan mm-hmm. wala léeg ma toog sama kër sama jaakoor sama tel di xool ku si mel ne Wally Seck yàlla dogoon na ñu ngi koy dégg am na gone yoo xam ne xamante nañu ñoom ci Kër Massar gi ñoo xam ne mbokki Wally lañ ñu mm-hmm. ñuy wax lu rafet ci moom ndax wax dëgg yàlla li dégg ci moom ci ñu koy wax wóolu nañ leen mm-hmm. ku am yërmande la boroom xol bu yaatu la li ma koy lancé daal en tant que jullit ak mbokkum jullitam nit ñi ñu ngi si ay tànkam pour bëgg koo yàqal waaye taal bu yàlla taal mu kenn mënu si dara moom nag am na lu rëy ndax suñ borom yëkkati na ko ca kaw waaye nit ñi ñu ngi tànk nekk dox si ay tànkam pour bëgg koo bëgg koo faagagal li moo koy dénkaat mu diwaat ci boppam bu baax a baax a baax su wax te xam ne ne xeex yi moom saa su xëyee xeex yi day gën di yokku te ñu ngi koy xeex te kenn ku ne diggoon na coow yi ci ginnaaw te yi ci kanam moo gën a raw hmm? waaw yi ci kanam moo gën raw kon loolu maa ngi ko koy dénk mu gën a jugaat ci moom bu baax si boppam bu baax baax a baax personnellement man bëgg sama sama nit la bëgg naa ko ndax dama am ñu ma bëgg ñoo xam ne ay mbokk yu sa si moom lañ. ñu ma wax si man si ak yërmandeem si ak baaxam. waaye la ma koy dénk mooy mu jugaat ci moom baax te xam ne nit ñi ñi dox ci kawam pour bëgg koo yàqal. Hmm. waaye nag na santaat baax a baax a baax nga xam ne moom taal ba ko suñu borom taal day gën a day gën a tàkk rek waaye na gën a jugaat baax a baax ba gën waaw mu gën a ngeem waat bu baax a baax ngetturuwaat fas yéene defaat si aw yaram fas yéene defaat si ay sarax loolu bu ko defee suñu bopp dana ko suturaat lépp waaye saa su ne nag nit ñaa ngi dox ci moom bët boo ko yàqal. kon tey moom bu ñëwee fii dina mën a am benn saafara dama ne la euh, démb rek démb démb rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko démb rek toog naa benn kilifa di waxtaan ci moom ci loolu. Hmm. ndax li tax ma ma ma sañ koo wax wala ma ñeme ko génne si écran di ko wax. Hmm. dama tëdd sama kër gis lu mu indil ma ak gineer lu mel ne moom mu taxaw mm-hmm. mu am ak jaaxal gu ma jaaxal lool ma gis lu mel ne ak lu ñuul di ñëw ci moom mm-hmm. nga xam ne lii ak faaga ak la waaye gis naa ak leen ak leer loo xam ne mi ngi jëm ci moom mm-hmm. ma waxtaan ci kilifa gu mag ma xam ma ne ma lii lu ñu koy fexel la lii ak taxu feex la ci moom kon ñaar yëpp gis nañ ko ñun moo tax man la bu jiwee su ñun wala ku taq ci moom ku jege ci moom ñu déggoo kàttanu borom bi def na ko defal loo xam ne min dépp yàlla sàkk laa wax de mënul si moom dara mënul si moom dara loolu moom des na ko def ngir jullit ak morom jullit waaye nag lu koy digal ngir jullit ak morom jullitam mooy mu jugaat moom te xam ne ne fexeel yaa ngi ci kawam ni ñaa ngi dox ci suuf waaw na jugaat baax a baax waaye xam nañ ne ku baax la ku yaatu la ku laabir la ndax léeg-léeg ma seetaan gis daje moom muy joxe joxe googu rek mën na ko sobi lu bëri bari te ku nangoo joxe la loolu ku ko mën rek sa alal yor sa alal liggéey ko di ko nangoo joxe loolu dafa métti doomu dafa métti sa xol daal mm. loolu yàlla loolu yàlla may na ko ko mm. ma nga lë ko suñu borom war sa ma man koy bokkoo doomu aadama yi kon kooku di ko ñaanal jàmm suñu borom defal ko tawfeex képp moo ci moo ci war mm. képp loolu donc moo ci war waaye nag li ñu koy sant di ko digal na xam ne ne nit ñi ñi ngi si tànkam di dox na jugaat ci boppam bu baax a baax a baax daal lañ koy digal moom kaddu yi am na solo ba tey rek yéen xam ne yéen gis loo xam ne day ñëw ñu gis ni que instant yi ñu ngi dem si élection locale mairie yi ban gis-gis nga ci am. son élection yi daanaka ñaare ñi ko seex ñëpp ñëpp ay julli dañ hmm. muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Pape Lamine Dias muy Macky Sall mii fi toogal tey réew mi hmm. waaye li may dénk magi Sall mi nga xam ne moo fi toogal ñëpp. di suñu di suñu président ndax ñu kenn ku nekk képp ku nekk président Sénégal rek Macky sa président la te nangu nañ ko mm-hmm. waaye Macky Sall li ma koy xaw li ma koy wax na ko leer ne njabar moom bëri na si tànkam si yaram njabar bëri na si hmm? te bu def attention élection yi du si am dara hmm. waaw bu def attention élection yi du si am dara jabar bëri si yaram lool. te jamono jii da koy da koy wane wu xoolal dañuy ànd ak moom ndax bëri na wala déet waaye ñun liñ gis mu leer ñu nañ mm. jabar bëri na ci kawam wallahi waaw lu ma leer laa ci wax li ma koy digal mm, bu ma nee saraxe juróom-ñaar fukki nag juróom-ñaar fukki ceeb saaku ceeb juróom-ñaar fukki saaku sukkër mu saraxe ko bu ko defee suñu borom mën naa sutalool lépp mën naa jëwal lépp waaye nii mooy jamono jii bu jugut ci boom defaat attention ci kawam mbiru mën na ko ñakk waaw ndax gis na li nekk ci liñ koy fexeel te doon doonu lu lu tuuti lu rëy rëy la ci ay njabar yoo xam ñu ngi koy teg ci kawam mm. ndax jugaat attention baax baax ci ci jëmmam loolu mu maa ngi ko koy dénk moom en tànk suñu président waaw. Euh, man li ma bëgg a laaj mooy ubbeeku ku bëgg a ubbeeku bu ñëwee ci yow nan ngeen di ubbeeku moom soxna si yàlla dogal na dañ koy liggéey nit bu tëjoo ba tëju ba umm mënut am dara. Mm-hmm. nit koo xam dafa tëju mënul am dara. Mm-hmm. mas da defal loo xam day tijjeeku am na loo xam ne bu ñu la ko joxee nga koy sangoo bala ngaa génnee fa doon sangoo da ngay santi sa yaram ni mu oyofee tooy. Mm-hmm. ndax maa ngi profité di laaj message foofu am na jëmm joo xam ne yàlla dogal Amérique la jógee woon Amérique nii lañ déggante woon maa ngi téléphone bi ñu déggante téléphone. yàlla dogal mu jóge Amérique te dégg dañ ay weeri weer gisante wuñ mu jóge Amérique ñëw sama kër bu ñëwee ci kër gi am ci kër gi semaine mm-hmm. semaine am na ko ci kër gi ma ko defal ay ñaan waaye kooku lañ seqoon moo tax ci wàllu ubbeeku ba mu jëfandikoo dañ ko doon jëfandikoo fu mu toog la ma toog namam maa ngi sentir sama yaram loo xam mosuma ko ci sentir kon loolu laay profité sama mbokk sëriñ di la xamal ne leen ñun sëriñ si ñun ñu woote wu ay sëriñ lañ mm-hmm. li leex war a sori maa ngi koy ñaan ñëpp kenn ku nekk ci ñun yitte jiñ lay diis soxla sañ lay diis booy su mënu dara ngal la bul rekk xaalis jàmbur ndax message bu ne ñu ngi koy dégg woote gu ne ñu ngi koy dégg téléphone ñu ñuy wax ne dem nañ si sëriñ diw weexal ko suñu weexal te gis ñu dara loolu nag na ko ñëpp may tundu man ñu ma fiy dégganteel extérieur nit nee na mu weexal na lu ne si sëriñ waaye gisu dara day mujj déclaration te ñaan nag fi lañ fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi fii si sifaa'un linnaasi la mm-hmm. ndax yonent bi sallallaahu alayhi gën gi mu def jabar da ko jàppoon mm-hmm. moo war doon falax ak naasi wàcc mm-hmm. kon ñun ñi jabar dañuy jàpp cat dañu jàpp liggéey dañu jàpp lépp dañu jàpp waaye nag mbir mu dafa war a am ci naan war a nekk ci yoon ñun sëriñ ci ñi ñuy ñaan loo buñ mënul li ñuy saafaral nañ ko teg ngir jëm bi rasuulillaahi ngir jëm yàlla ñi ngi ñaan lu timit nañu xool ñi ñuy ñaan lu baax a baax nañu xool ñi ñuy jox seen xaalis bu baax a baax dëgg nag xula xaq wala kaan murran xula xaq wala kaan si ko wax dëgg dont dañu lay rey nit dangay wax dëgg lépp loo mënut na nga ko tege mhm. lépp loo mën na si def te yàlla tax waslu si àq mhm. ndax doomu aadama bi dañoo sonn mhm. ndekk orop bàyyi seenu njaboot ci ginnaaw yaa ngi dégg fas yéene wut lu jàng lu leen teral dikk di la soxlaam nga war ko ko saafaraal di ko nax di lekk xaalisam loolu dafa mën a ñàkk si doomu aadama loolu manqué laa sama mbokk sëriñ sëpp ñu bàyyiwaat si xel ndax jamono jii foo wax mun a tiriyan ya foo wax mun a tiriyan loolu dafa mat dafa mat a daw dafa mat a ragal kon loolu maa ngi si sàkkuwoon ñëpp ñu fa seen tegewaat si ak njub daw lépp loo xam ne lu wuute la ak ak ak ak ak doxin wi ndax bay na loqutal naqiir wa loqutal fatil lu nekk saalu boo ko yorli da nga ko fa yamul xayam sàkk maa ngay lekk nag ay alali alali doomu aadama jàpp na dana res yow ma xëyam da nga ko fay bu du dëgg kon loolu maa ngi ci lancé ñëpp di ci profil di ci lancé doomu aadama yëpp di ci lancé doomu aadama yëpp ñun nag ñooy jëmm joo xam sëriñ Bassirou Touré alquran dëkk fii Kër Massar yàgg na ñoo gis ci mbir réseaux yi waaye jamono yi gëjoon nañ ci génn lool sax gëjoon nañ ci génn li taxoon nag mooy nekkoon si ab liggéey nekkoon si ay xalwatu ndax xalwatu dañ ciy dox bu baax a baax nekkoon ay xalwatu nekkoon ci ay mbir moo taxoon di ko jot ñu gis waaye ñi ngi nagé suñ mbokk yi nga xamante ne daa lañ gisante te gisanteetuñ ñi nga xam ne ñu ngi ci jàmm bu baax a baax baax mm. nam mun nañ leen lool nag waaw ñu ngi ci jàmm bu baax a baax waaw yi am na solo léegi buñ la bëggee jot bu ñu bëggee ñëw Kër Massar bëgg la jot fan ak fan nañuy wàcc parce que Kër Massar dafa yaatu Kër Massar dafa yaatu boo bëggee ñëw Kër Massar seet suñu boo ñëwee ba station Kër Massar boo laajte osan osan bi Kër Massar ba mm. boo ñëwee Ousseynou bi ak sama kër ñoo jàkkaarloo. numéro téléphone. am na WhatsApp am na orange numéro orange bi mooy doon 77 781 79 00 77 781 79 00. numéro Tigo bi mooy WhatsApp bi 76 480 26 94 76 480 26 maa ngi profité du nuyuwaale sama mbokk yi nekk Amérique yëpp diaspora bi ñu nekk si Washington New York Espagne France Italie maa ngi nuyu ñu ñëpp di leen siyaaroot baax a baax ba di leen ñaanal saabam dafa leen tawféex ndax ñu sonn ngeen. di leen digal tamit ñu fonkaat sarax bu baax a baax. di saraxe lu weex defar lu nàkk seen kër ay nakk ceeb def si 66 ndàkk nàkk ceeb nga saraxe ko loolu maa ngi leen koy may ñu saraxe ko. fur wi pomme orange banana yooyu maa ngi leen di sàkku ñu sarax bu baax ndax loolu dana war a ubbeeku boo di jënd tara mu takk ba ñu takk tëju te mënut tëju. da ngay faraxe di saraxe juróom-ñaari mbuusu soow nga saraxe ko wala boo mënee toggul yàpp teebu nga saraxe ko wala nga wut ñetti kiloy mburu mburu bu ne nga dagg ko ñetti dagg muy neuf dagg nga sarax loolu maa ngi si laabire ñëpp sama mbokk yi nekk Europe di leen si waat baax ba ñu gën si góor te xam ne mbir yi moom yàggut day métti rek waaye nag lépp dana taw feex ñu leen di ñaanal baax baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah